ni da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow do ñu chantage ki may waxal lolu moy Sonko ci bopam wa nabi Vision. man mako wara chantage ndax bu dee ba tal ak sama taxawaay tax. keroog bañ ko jëlee prison mu nek dans le coma ñu yobbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt, Khalifa Babacar Watt ni ko taxawul ma Sonko mok pap Alé ñom parce que ci liquide len la ñu jëm te ëpp na bàyyi nonu. mu taxaw mon professeur bu ci ne sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def lenen. kon nak bu demee ba yàlla may ko mu tal ko Nabi Vision mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative kenn rek moo ma jaaxal

maa lànk recevoir wu ma kat waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw sonk moo ma yónni woon bu dee doo ma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw eh, bu ko defee kon nag ah, waaw dañu tudd Yewwi Askan Wi Naby Vision bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yàgg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defe yàlla rekk a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de l'avant ma defe ni kon nag te loola it laa dëgg ba duma Macky Sall la duma yu sap-sap waaw li nit ñuy soow yëpp soow soow soow man wóoroon na ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareegul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rek ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari di teey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñu nga ca Naby mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au fond li mu xalaat lan la ndax yóbbante na wax ko ñeneen noonu ñeneen noonu Déthié Fall mu ngi ko yóbbante Cheikh Youm mu wax ma ko Anta Babacar Ngom waxoon na ni fii lay gàmmoo xaw ma nag ndax mujj naa ñëw walla ñëwul bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax Moustapha Sy waxul Naby Vision ma ne waaw réew mi Moustapha rekk a fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am koo xam ni moo may orienté muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxoon ni bu ñépp dee wax booba noppi jot na te Sénégal ñépp a ngi wax kon nag xam sa bopp ak sumtu xukmun mais bu ñaarel bi mo wara tax nit ñi gën teey moy mag ñi dañu wara xamé ñaari khutba yi xutbatu alladina anamta alayhim ak xutbatu almaghdubi alayhim aw ad-dallin nabi Vision mag ñi dañuy natt ba foofu am na ñoo xam ne bu ñu waxee yàlla seen kàddu ci alladina an'amta alayhim ca la koy natt ndax duñu wax mukk lu leen wóorul mais am ñu nga xam ni nag même bu leen yonent juróon wala wali yu jur leen bu ñu waxee seen kàddu ci al almaxduubu alayhim awi dallin ci lañ koy nat ngeen bal ma nak bu may wax aya fek ci bir phrase arab la bokul ak bu may wax aya fek ci bir al qur'an la ñaar yi bokul waaw bu ko defé nabi Vision xamé ñaari discours yoyu da fay am solo ndax sens de responsabilité moyenne.